waaw dañ ñëw fii tey euh, fii ci ANEN euh, pour seet si liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci xur wi ndax xam nga fan yee weesu ñëw nañ fi pour tàmbali liggéey bi jëm ci deqel waat xuru jobas te xam ngeen ne dugal nañ ci lu mat euh, juróomi téeméeri million yoo xam ne euh, diggante nootoo Noto Tëbdal ak Anéne fii ci Anéne nag fii la ñu waroon taxaw loo xam ne mooy bassin de rétention ndox mi ngeen di gis ndox mi ngeen di seen tabaar fakal la euh, foogoon nañu sax déwén la bi waaye ren yàlla def na jàmm ba ndox mi euh, taana fi boo jëlee fii lu mat juróom-ñetti ab dëkk yi nga xam ne ñoo wër xur bi ñëpp soit ñu ngi jàkkaarloog ndox mi soit seen teen yi gase ci ñetti mètre mbaa juróomi mètre am ndox loolu nag lu muy firi mooy képp ku nekkoon baykat dëkk fii ci Jobaas xamal ne am nga jumtukaay ku bees ndax boo xoolee Jobaas nu mu euh, euh, bindoo dëkk yi euh, dañu wër xur wi kon bu ñu deqalee xur wi lu muy indi rek mooy da ngay indiwaat dund indiwaat koom-koom ci dëkk bi te gis nga fi ñu nekk aneen taxawal nañu benn bataaxal ñu naan business plan boo xam ne dafa doon natt ndax mi bu ñëwee buñ ñu fi béyee ñaata lañu biñ ko xayma 500 euh, millions la maanaam juróomi téeméer millions yoo xam ne ñoom béykat yi daanaka duñ dugg seen euh, gafaka ci at mi euh, ceeb fii ci Diobass man di fàttaliku buñ ko fi gëjee ji waaye bu ñu jógee fii nañu gis benn tool boo xam ne toolu ceeb li muy wane mooy Notto Diobass dina bokk ci ñiy participer ci contribution Sénégal autosuffisance en riz loolu nag li muy waxe wane mooy waa Sénégal waroon nañu gëm ne réew ñun ñoo a defar suñu bopp ndax bi ñu fi ñëw juróomi at yi weesu xur wi nekk fi woon ñu ànd ak askan wi di dox dem di gërëm bu baax ARD Thiès ak suñu xarit Chérif Diagne di gërëm bu baax également Barba Fort avec la coopération belge ndax ñoom ñoo jàppale ba ñu taxawal lii kon lii bu fekkee ku nekk def na ko wax dëgg yàlla euh, jàpp nañu Sénégal dina euh, suqali koom-koomam dina suqali euh, lépp luy développement fii la ñu nekk Anéne waaye bu ñu jógee Anéne fii ñu ngi dem incha allah Mbodiène pour tàmbale fa li ñu naan électrification ndax Mbodiène dafa nekk dëkk bu cosaan boo xam ne seen farata bu njëkk moo doon courant incha allah bu ñu jógee fii également liggéey bi nañu ko tàmbalee ndax poto yi ñëw na ak câble yi te suba ak jàmm dañ commencé piqueté sànq dañ jógee pour jàkk euh, jébbal jigéen ñi la xam ne moo jëm ci wàllu unité de transformation ci programme boo xam ne problème ndax dama ne kaw gi ñu toog rek euh, usines yi ñu ne monde bokk ci bu fekkee euh, nit ñi dañuy béy muy dugub muy gerte mbaa muy tamaate mbaa muy soble te duñ leen jox ay machine pour ñu mën ko euh, soit ñu koy boj soit ñu koy transformé mu mën a indi valeur ajoutée loolu di indi koom-koom ci réew moo waral problème muy programme boo xam ne dañ ko bëgg a lawal ci réew Sénégal yépp euh, li ko tax mu jóg mooy fexe ba ñu indil jigéen ñi fii ci kaw gi mbaa jeunes yi ay jumtukaay ay machines yu yem yoo xam ne dañ ko mën a jëfandikoo pour euh, taxawal ay produits yu mucc ayib yoo xam ne bu ñu ko jaayee am ci bénéfice.